Thank you. Euh, ñu dese ji ba tey euh, si seen diggante maître Abdoulaye wadd ak yéen euh, dafa mel ni gannaaw ba ngeen demee seeti kii di maître Abdoulaye wadd mhm. bu ñu sukkandiku si écho yu ñu am. Mhm. jox na leen xaalis ngir ngeen amal seen manifestation loolu dëgg la wala. waaw Abdoulaye Wade bi ñu ko seetee moom dafa ni ci mbir yi la bokk. Mm. mu yëkkati koppar jox leen. waaw yëkkati na koppar waaye la mu joxe sax. taxu ko demee noonu ñaata la. xam nga nit ñi noo fi nekk di kii waaye la ñun gis nga suñu manifestation yi ñun wax dëgg yàlla. suñu mm. système mooy dañuy cotiser. waaw Abdoulaye Wade ñaata la joxe woon. Abdoulaye Wade def naa li mu joxe woon bon trésorier euh, de la pour leeral ko parce que naan Abdoulaye Wade millions ay millions la leen jox ñii naan Abdoulaye Wade da leen jënd dugal leen si ba c'est le moment instant yi ngeen leeral ko. waaw xam ne benn somme significative rek la joxe. comme wax dëgg yàlla parce que ni mu la jox ñu mënul benn benn mooy comme ñaata la marche yi defe naa suñu budget yi day dem ay plus de sept cent mille wala et ñaata la ñaata la si somme parce xanaa dafa bëri ba làmmañ mënu koo tudd. non barewul sax barewul wax dëgg yàlla barewul. ñaata la xaw ba xam mën nañ def fii conversion bi wala déet mais euh, bu matul ay je sais pas ay sept cent mille daal barewul. ah sept cent mille genre peut-être ah, ma gën maîtriser mën na am sax li ma wax ëpp na peut li mu euh, li ma wax nii peut moo gën a bare sax li mu joxe. Ah, bon je je je veux pas dire <laughs> exactement le chiffre mais xam naa ni gën na gën na néew loolu daal. Ah. waaw parce que polémique bi nañuy bañ et puis nit ñi yaakaar dañuy jox alal jurul jeex te fekk na ñun dañuy cotiser chaque chaque marche dañuy dem cotiser. Hmm. Euh, mouvement bu ne macha allah bare nañ. Hmm. ku ne di joxe ñi nga xam te teew kii nañ daanu mën participer ñi jekkuwul bàyyi ba baneen. d'accord yéen nag moom kon yéen doy ngeen waar yéen Abdoulaye Wade jox leen lu tolloo ci 700000 francs ak fu Sénégal toll fii nii instant yi nga xam ne moom ancien président la te mag la yéen ko waroon jox sax mu jox leen 700000. ngeen ngeen ni am ay propos yu xaw teggi na yu di koy teg si ndoddam waaw xam naa ne sax yaa ngi def référence su kilifa kilifa mooy euh, génnam bi mu génn keroog waaye kilifa moom ngay wax noonu wax hmm. dëgg yàlla xam ku naw Ablaye Wade la wax la ko tey ah waaye ay kàddoom day waroon na ak yow li ngay wax waaw xam nga moom fi mu waxee nit ñi dafa baax tam nit ñi di dégg fi mu waxee maanaam da doon wane rek ni kii nga xamante ni moom lañ fi teg hmm. euh, fi mu jëm nii bu teggiwul tànkam ni nu ni fi nu jaaroo ak la nañu jaar ak moom maanaam jëlee ko ci bopp réew mi loolu sens boobu rek la bëgg a waxee waaye mm-hmm. àll bi bi nga xamante ne loolu am na gis nga euh, collective bi. Mm-hmm. Euh, le collectif nu sommes très responsable def na nañu communiqué daal di jéggalu baalu Ablaye Wade baalu parti démocratique sénégalais baalu seen alliés yi baalu képp koo xamante ni mbir mi laal na la. te ñu ngi koy maa ngi feddeluwaat fii di di di di di di di di di delluwaat ci propos bi di wax ni collectif bi à mon au nom du collectif ñu ngi jéggalu encore une autre fois propos yooyu xam ne Abdoulaye Wade suñu kilifa la suñu ancien président la suñu maam la naw nan ko seeti nan ko dox nañu xel ak xam-xam bu ñuy dollee ko di ko jëfandikoo ndax ay ndaw nanu avenir Sénégal intéressé nu te moom am na lu mu ci liggéey loo xamante ni vraiment kenn mënatu ko dindi ci réew mi continuer rek nañ ko mën def pour yokk Sénégal D'accord. Euh, may rappeler rek vous qui nous suivez euh, sur notre page Facebook euh, Sénégal 7 wala sax euh, suñu page YouTube Sénégal set euh, TV tey jii nag yéen a ngi seen émission la grande interview ñuy may dalal Mamadou Ndeye Ndoye féeto si pa féeto si mouvement ñoo lànk ñoo bañ ñu continuer monsieur Ndoye ak actualité de manière générale nga xam ne gis neen fan yi ñu wees liste au rapport des cours de de la cour des comptes génn mhm. euh, bu 2014 2000 2015 2016 2017 épinglé ñu bëri ñu féetoo ci euh, état bi mhm. yow euh, mbir moomu na ban lecture nga ci am rapport yi génn épinglé ay nit yoo xam ne dañoo far ak kii di Macky Sall nga xam ne dafa oote woon gouvernance bu sobre et vertueuse waaw xam nga rapport yi sax ñun li ñuy jëkk ñaaw lu mooy rapport yi dafa dafa yéex a génn mhm. waaw la cour de comptes comme ni ko ñenn say mbokk journaliste yi di waxee mhm. a des comptes à rendre au Sénégalais mhm. euh, ndaxte mënul la dénk cour ñoom ñu ne effectif bi moo doyutoon waaw effectif bu doyatul euh, nguur gi war na góor góorgóorlu recruter. Mm. ndax déjà am na xale yi diplômé ñu ngi fi. Mm. mën dem cour des comptes liggéey fa liggéey bu am solo. Mm. jàppale leen kon nag defe naa ni euh, loolu du ali bi effectif bu doyul personnel bi ko war a compléter mi ngi fi nañ leen recruter nu jàpp ci liggéey bi mu mu gaaw waaye nu jox la liggéey nga toog euh, dajale ñetti rapport te ko sur la table loolu doy na waar ba pare amee ameel nu rapport 2018. amel na encore rapport 2019 euh, projeté nu pour octobre pour génne ko xam nga loo tam kenn ba tey ñu ngi ci lenteur bi kon nag war na góor góorlu bu baax ñu ngi leen di ñaax di leen kii ñu gën a góorlu euh, ga baral seen loxo ci parce que rapport yi dañ koy soxla pour mën a évaluer gestion yi. d'accord bu ma jógee ci loolu ñi nga xam te ne épingle nañ leen aussi. Mm. parce que aussi tamit justice ci réew mi ñëpp xam nañ ni ni muy doxee nii euh, doy na waar euh, booy seet. bari na scandale yoo xamante ni am na fi yoo xamante ni euh, ba léegi nii justice yéeyu si yàbbi mm. Euh, le procureur doit euh, euh, dafa am habitude di autosaisir si yenn dossiers yi nga xam ne kon yow man su ma la déggee dafa mel ni yow yi les rapports gëmoo ne justice taxawaay bu mu si mën a amee dina ko suite judiciaire bi dafa mel ni yow gëmoo ko waaw ma am nañu si yaakaar parce que am na yu fi jaaroon yoo xamante ni gis nañ ba léegi ñu ngi xaar mm. dara sotteegul donc comme yooyu kenn laal ko bii tam dina dina xaw yéeme trop pour que ñu laal ko dégg nañ tam njiitu réew mi ne day créer benn commission pour saytu si loolu mm. booy seet euh, liggéey bu toll nii c'est-à-dire boo créer commission ça veut dire amatuloo confiance si liggéey cour des comptes. mais commission boobu est-ce que ja euh, mënuñoo jàpp ne benn ruse la rek. Mhm. Euh, bu président Macky Sall bëgg a def juste pour euh, fàttaloo nit ñi rapport parce que foo dégg commission rek. Mhm. dafay nekk benn manœuvre politicienne. effectivement effectivement booy set commission yu si bari dañuy ñëw uniquement pour di daganal loo xam ne dafa xaraam dafa araam wala loo xam xamante ni jaarul yoon mhm. parce que gis nañ si affaire 94 milliards yi. am na commission d'enquête parlementaire bu ñëwoon daal di defar kiiwam defar ba pare ndeke ñoom it sax euh, si si def nañ ay erreur dañu gën a enfoncé ki nu doon jéem a setal euh, kon nag wàllu commission moom bëgg naa daal Sénégal ñu teg a fale te xam ni Cour des comptes bu defee liggéeyam ay magi au magistrat ay borom xam-xam def liggéey bu rëy teg ci taabal yi li gën mooy ñu jébbal juge mu àtte euh, mu àtte ñi nga xamante ni épinglé na leen seen gestion ñu ñu ñu ñu ñu delloo li nga xamante ni luubal nañ ko. d'accord euh, rapport yi day wadd ñuy épingler ay jiit nit. Mhm. ñu gis ne carrément benn suite judiciaire du si am. Mhm. Euh, boo seetloo sax nit yu ñuy épingler dafa mel ni dañ ni di promouvoir épingler ngeen fi euh, directeur COUD ñu génne ko directeur COUD yóbbu ko. Euh, ministère ñu e- épinglé mustapha Moustapha ñu jëlee ko ci ministère bu ndaw yóbbu ko ci ministère bu mag mu mel ni comme euh, institution yi nga xam ne teg nañ ko ngir euh, mu mun a xeex malversation mhm. est-ce que tamit nekkul tamit ay institution yoo xam ne rek dafay jeexal alali askan bi te jë amu fi benn njëriñ waaw waaw mën nañu jàpp loolu parce que booy seet ay institution yoo xamante ni dañ leen budget budgétiser ñu am budget di dox di di di di doxal seen liggéey mhm. teg nga jël liggéey ba daal di koy tegaat nale kooku defe naa ni euh, dafa bokk si ni nga xamante ni dafay euh, yàq suñu alal te du te du amal benn njëriñ suñu alal fi ñu koy dugal dafa war fekk foo xam dafa am njëriñ te ñoom liggéey bi ñu def am na solo am solo goo xamante ni dafa bokk si ni nga xamante ni bonne gouvernance lay participer mm. parce bon bonne gouvernance mi ngi tàmbalee si lépp lu la dénk nga saytu ko teg ko si yoon xool li nga xamante ni noonu la ko dénkee euh, fi nga tàmbalee ak fi nga yem li nga ci def nga def ci anam bu sell lépp bépp bépp bépp bépp facture boo xamante ne établir nga nga justifier ko ak na mu war a demee nga xamante ne duñ fi nekk naan dañu jënd ay kilo ñe euh, saa xam nga ko waxati kilo cinq cent loo euh, ay détails yoo xamante ne ku ko dégg di nga xamante ne lii même pas soxlawul sax dem ba université pour comprendre que ni lii tegul ci yoon vraiment yooyu doy na war moo tax euh, bonne gouvernance daal ak citoyenneté booy seet mouvement yi ñu nekk ñu ñëpp ci loolu la ñuy œuvre loolu moo ñu yëkkati. d'accord ñuy wax ci ay rapport yoo xam ne ay nit dañoo laale ci alal yi euh, boo xam ne askan bi yëpp ñoo ko bokk mu nekk ay deniers publics. Mhm. Euh, ñu gis ne fu mu toll nii Sénégal denrée yaa ngi yokku mhm. lu ëpp ci ay entreprises yoo xam ne sax mun nañoo wax ne ci état la ñu bokk ñu ngi sooxe mhm. parce mun nañoo jël exemple CDC mhm. euh, mu nekk entreprise bu yëngatu fii ci bâtiment construction bâtiment étatique fii Sénégal mhm. ñoom ñu ngi am menace de licence licenciement lu toll ci deux cent ci seen ay emploie te ñoom euh, seen employés ñu ngi toll ci quatre cent mu mel ni comme ñu ngi fas yéene libérer quatre cent ci ñoom mhm. te loolu lu ko indi mooy euh, ñàkk marché parce que ñu ne depuis un an état bu Sénégal joxul leen ay marché parce que ñoom dañoo gis ne euh, état bu Sénégal Turquie yeeg chinois yi français yi lay jox. Mhm. si beneen wàll bi tamit Sonacos libéré na 700 employés effectivement cause euh, campagne arachidière bu bu bu baaxul ak det bu leen état bu Sénégal yor est-ce que tamit euh, politique euh, état lajjiwul si mbir yooyu waaw état bi moom fi ñu toll nii yaakaar naa ni dafa def lu dafa dafa lajj si plan yu bari mhm. parce que kaw Senelec bi mooy le cas le plus euh, palpant pour mën a euh, justifier lajj yi nga xamante ni état wu Sénégal lajj na ko mm-hmm. parce que état wu Sénégal fi ñu toll nii dafa nekk ci banqueroute dafa am problème xaalis mm-hmm. problème xaalis bu endémique bu doy waar léegi euh, euh, te d'ailleurs sax cas euh, Sénélec ba tey mm-hmm. amoon na un gars qui travaille mm-hmm. la Sénélec. keroog si émission Sen Show mu ngi xam ne ne le Sénélec n'a pas un problème d'argent état bu Sénégal si boppam moo xam moo am problème d'argent te mu ngi xam ne ne banque mondiale moo jox Séné état bu Sénégal injonction ngir mu mun a yokk. parce que nee moom këyit boobu teg na ko si gëttam mu nekk mbir mu doy waax effectivement c'est un su ma juumul ki ngay mm, wax waaw syndicaliste parce que ñu ngi xool cause problème bi mm-hmm. FMI la wala Sénélec la wala état Sénégal mm-hmm. mais lu ci mënti am daal bu fekkente ni daal euh, lu ci mënti am état Sénégal moom am na problème xaalis mm-hmm. te problème xaalis bu ko amee dafay jéem a xool fan la koy wute ji mm-hmm. fan la koy jële ji te léegi ñun suñu suñuy solution dafa bokk si ni état bi war na mën jëlee solution euh, xaalis bi faneen fudul si population bi mm-hmm. parce que jëlee xaalis si population mooy la solution la plus facile y en a plusieurs mais nag ni ma pompe population bi la masse mm-hmm. mooy yi nga xamante ni moo gën a oyof ñoom ñu jublu fa directement pour appliquer ko léegi ci biir euh, ci biir ci biir loolu aussi waa wàllu licenciement yi nga doon wax sànq dafa am solo parce que euh, boroom kër xëy mu doon daan dooleem fenn di jël di dem si njabootam nga xëy daal di koy dagg la mu doon def mm-hmm. yow waxuma la moom rek mais li nga yàq si ginnaawam xamuloo nu mu toll dafay baax des fois aussi ñuy delloo si waat suñu xel mm-hmm. di xool ni ñun responsabilité bi nu amee fan la jëm ak tamit am euh, politique de préférence nationale effectivement la préférence loolu moom c'est vraiment la nationalisation dafa am solo préférence nationale lu lu am solo la parce que loolu mooy protéger sa njaboot bala ngay protéger euh, euh, économie jaam la ngay protéger sa économie bu mu dëgër nga soog a nga soog a wuy ci keneen